maaleykum mbokki internet yu Buzz Football TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ngeen del jàmm suñu chaine bi di Buzz Football TV bu dee gën nga ci page bi maa ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi di liker vidéo yi ñu dalee xibaar yi ci tàggat yaram ci le record le record bi nga xam ne ni kii nii di Sadio maane moom daal jege na li nga xamante ne nii moo di coupe championnat Angleterre bii nii mooy ne quatrième sacrém wala da koy ñàkk maanaam si proche wala si loin maanaam jege na ko wala mun na ko sori tamit mun na ko ñàkk parce que ki nga xamante ne nii moo di City moo ko rawee ay point ba tey mais City masam bii nii di ñëw bu ko ñàkkee lii di Liverpool mun naa am chance pour remporter li nga xamante ne nii moo di championnat bi waaye tamit teg si euh, Liverpool am na ki nga xamante ne nii moo di Wolverhampton Wolverhampton koo xam ni xam ni équipe boobu noonu du équipe bu euh, du équipe bu équipe bu yomba gañe wax dëgg yàlla mais jege na ko wala sori na ko daal ki nga xamante ne nii moo di Sadio Mané buñ jugee foofu dem ci Gana Gueye moom daal mi nga xam ne ni kii nii di Gana Gueye daa subir benn harcèlement institutionnalisé li nga xam ne lii nag ki nga xamante ne ni moo di fédération euh, fédération sénégalaise de football moo ko xamle maanaam dafa subir benn harcèlement institutionnalisé te ñi ngi Euh, te mi ngi bëgg a saisir li nga xamante ne nii moo di instance internationale pour li nga xamante ne nii Sadio kii nii di Gana Gueye subir na ko fa li nga xamante ne nii moo di Paris bu ñu jugee foofu dem ca l'équipe bu ñu demee foofu nag ca l'équipe dañ fay fekk li nga xamante ne nii dañuy njëkkee ci Kylian Mbappé Kylian Mbappé daal ñu ne. moom dafa war a annoncer li nga xamante ne nii day dem Real wala day des fi nga xamante ne nii moo di Paris ñoom daal loolu lañ jënne ci yéenekaay ki buñ paree foofu dem ca Marseille Marseille nag tey dafa am match bu méttee métti moom moom ki nga xamante ne nii moo di Strasbourg Strasbourg. buur gu moom daal tey Marseille am na match bu metti metti metti ñoom ak ki nga xamante ne nii moo di Strasbourg parce que seen match bii nii euh, dañuy xëccoo li nga xamante ne nii pour am ci place européenne yi moo tax match bi tey du yomb bu soobee yàlla bu ñu jugee foofu dem ci Mundo Deportivo bu ñu fa demee ñoom daal ñu ngi wax ci Kylian Mbappé Kylian bappe Euh, ñi ngi xam ne ni daal Kylian Mbappé mën naa des Paris wala mën naa ñëw fi nga xamante ne nii nag moo di Real de Madrid euh, bu ñu jógee foofu nag jigéen ñi ngeen di gis sol euh, mayo Barça maanaam. Euh, kii bu bees la quoi couverture bu bees wu waa Barça bi bu ñu jugee foofu dem ca Marca dem ca Espagne Marca fekk fa marka muy Kylian Mbappé laa dudda offandé maanaam euh, Kylian Mbappé am na choix choisir ki nga xamante ne nii moo di Paris ak li nga xamante ne nii moo di Real de Madrid moom daal war na choisir si ñaari équipe yi nii parce que ñaari équipe yëpp ko soxla Paris bëgg na mu toog bëgg nañ waa Real bëgg nañ Kylian Mbappé ñëw seen équipe mais Oh, ñoom ñaar ñëpp ñu ngi def seen i offre pour téye ki nga xamante ne nii moo di Kylian Mbappé waaye nag Paris équipe bii nii di Paris moo ëpp lu mu def offre parce que bu ñu seetloo ni ñoom defal nañ ko prime 300 millions d'euros ñee defal nañ ko prime 120 millions d'euros donc bu ñu xoolee foofu noonu Paris moo ëppale li nga xamante ne nii moo di prime pour jox ki nga xamante ne nii moo di Kylian Mbappé bu ñu jugee foofu dem sa tuto sport ki nga xamante ne nii moo di Angel Di Maria le joueur l'enfant argentin moom daal ki nga xamante ne nii moo di Juventus waa Juventus soxla nañ ki nga xamante ne nii moo di Angel Di Maria pour ñëw seen équipe football foofu noonu waaye tamit waa Angel Di Maria nag day dem day dem fi nga xamante ne nii moo di Juventus parce que tàggatoo na ak waa Paris waa Paris ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax waa Parc des Princes bu ñu jugee foofu nag dem ca Juventus Juventus daal ñi nga xam ñi bu ñu jugee foofu tamit. Euh, dem ca Manchester United fekk fa ki nga xamante ne nii moo di Paul Pogba waa Paul Pogba tamit bëgg nañ waa Juventus mu ñëwaat waa Juventus bëgg nañ ki nga xamante ne nii moo di Paul Pogba ñëwaat fi nga xamante ne nii moo di championnat Italie football fa nga xamante ne nii moo di Juventus parce que soxla waat nañ ko euh, soxla nañ ko trop trop trop ak ki nga xamante ne nii moo di mi nga xam le ni tamit Mbappé resta al PSG maanaam Mbappé mën na des fi nga xamante ne nii moo di Paris mbappe mun na des fi nga xamante ne nii moo di Paris parce que bu ñu seetloo si offre yi ñu ko defal mën na am mu toog fi nga xamante ne nii moo di Paris.